bëri na lool ci kawam ñenn ñi fare nag ci ku ji langue politique bi di ko dut baaxam jàpp ni dafa lëkkatloog état bi ngir daal di éliminer adversaire politique jëm ci présidentielle 2024 bi nga xamante ni moom la ñuy waajal ñenn yi sax ci ñoom ñooñu nag sàkku sax njiitu réew mi mu daal di rek tekki seen ndombal tànk gannaaw télé bi ñu wone ci processus bile moom moom la sax njiitu réew mi nag nara présider boobu de cérémonie gannaaw bi nga xamee ne nag mooy njiital conseil supérieur de la magistrature boobu la présidence nag tax ñu bëri jàpp ni justice moomul boppam ci ni muy doxee loolee tax ñu jàpp ni jot na nag ñu indi coppite ci fànn boobule bu ci njëkk nag mooy fexe ba jëlee ko ci bopp boobule conseil supérieur de la magistrature ana lan lañu mën a wax it ci coowal procès Ousmane Sonko ak ndogal yi nga xamante ne justice jël na ko te état lank ne du jëfe yenn yi gannaaw tuuma ak coow yi nga xamante nag gàll nañ ko ci ndodd justice jiitu réew mi moom di wéy di xamle ni du benn yoon bu nga xamante nag loxoom mi ngi ci biir doxalinu justice ñu ngi fàttali sax kàddu yi nga xamante ni yëkkat noonu ko nii daaw ci waxtu yooyu la xamle woon ni nag dana def kéem kattanam ba mën a rek protéger bépp may magistrat ak ñi ñoo nekk ci réew mi te di doxal yoon. élage bi ngoog la ban jàngat nga ciy def. Ah, waxandoo rek. moo di. jiitum réew daal boo bëggee dégg dëgg fii da nga fay war a jóge. Hmm. conseil supérieur de la magistrature. da nga fay jóge may leen seenug aafiya. seen dañ na ñetti pouvoir a am. la ca penc ndawi réew ma. dégg nga député yi hmm. doxal. moom seen bopp kenn du leen dicté. kenn du leen wax ne leen bu subaa na ngeen def nangam def nangam dëgg la nag. Mm-hmm. légis législatif bi ak euh, exécutif bi am na benn cordon ombilical bu dox seen diggante. Mm-hmm. maanaam bu ñu bokkee mouvance. président de la république liy doxal liggéeyam ak ñu koy votel ay loi am ñun ñi ci maire yi dañ koy dund. dégg nga muy opposition comme pouvoir loo xam ne day jëmale réew mi kanam ñu ñu ñu ñu ñu wote ko. dëgg loolu dëgg mm-hmm. lu jëm tam ci wàllum justice ñu ne dañoo moom seen bopp bàyyi leen ñoom ñu doxal. waaye yow kii euh, euh, euh, Fofana. Mhm. soo nekkee njiital justice bi yaa leen di nome nommé sa ministre de la justice. ministre de la justice buy ñëw indaale procureur am. dégg nga mhm. gis chaîne bi maanaam chaîne bi dafa amul dafa dafa kiiwul dafa. waa am amul chaîne chaîne bi moo amul dagg ci yoon bi. magistrat boo xamante ne ni rendre na droit bu la neexulee ñu toog tuuti nga dégg na yóbbu nañ ko Tambacounda. nga toog tuuti dégg na affecté nañ ko wala bërëm nangam. Kédougou wala Kédougou wala nangam sànq. te dañ leen waxante dëgg ministre de la justice nekkoon na fi di maître Malick Sall fii la toog. Mhm. ne ne c' est moi même qui demander au procureur de la République euh, euh, de de de de d' arrêter Adama Gaye journaliste. déggoo ma de. Mhm. président de la République boo xam ne moom moo nommé ministre de la justice ministre boobu bi muy ñëw mu indaale procureur am le procureur est le maître des poursuites. mais yow kay fexeel kon ba góorgóorlul ba yow président de la république boobu nekk nekk nekk euh, conseil supérieur de la magistrature jiite ko nommé waat ministre de la justice am fexeel bay bokk moom parti chaque jour. mais si hmm. tu es dans l' opposition. mais yéen ñëpp sa waay seen bakkan ci xottu gerte la. parce que à tout moment. Hmm. mën nañ leen wax ne leen léeg léeg léeg li ñu waxoon fii nii ci assises yi dafay yomb ma mbay. Hmm, dafay yomb képp koo xam ne falu nga. yaa xeeti ma laa ay jiite parti jiite wàllum justice beeg am na ci yoo xamante ni dafa. dafa dafa dafa dafa dafa jekkul sax maanaam pour yow parce que dootoo mën a tëddee njaxaanaay. moo tax loolu même bu dee ci biir parti bi waxuñ na nga génn parti bi de. Mm-hmm. mais même bu dee parti bi dañuy woote réunion ngay ñëw di toog nekk un militant parce que parti moo la fal et cetera et cetera. Mm-hmm. dëgg loolu dëgg waaye nag dëgg dëgg fa yàlla daal xam naa ni daal. Mm. lii daal njiitu réew yi dañ fa war a jógee. te am na ñoo xam ne ci seeni programme. Mm-hmm, justement nee bis bu yàlla dogalee. ñu jël réew lii dañ fay justement loolu dañ ci bàyyi xel bu baax ci programme yi nga xam ne du ñàkk candidat yi dinañ ñu ko proposé Mamadou Fofana jàppale ne kon euh, ñenn ci candidat yi nga xam ne ñoom la ñu euh, maanaam jotuñu jàll ci parrainage yi euh, ñoom ci boppam joxoñ nañu baaraam conseil constitutionnel boobee ba sabab démb dalal nañu leen ca ab audience ñu tuddee président Macky Sall si diiru ko ñetti waxtu waxtaan nañu ci manquement yi ñu gis ne warees nañu ko joyanti jëm ci processus électoral bi ngir nag ak tëddee ñaaxanaay daal di say am ba ñu génne nag Alioune Sarr moo yor seen kaddu nee na amul benn yoon fu ñu waxee nag lu jëm ci ay dàqum élection ñu teewlu ay kàddoom. lorsque la loi n'est bu ñu ko respecté wul euh, dañu si jël ay mesures. Euh, si saas ndax na warul xaar du moment que ñàkk nañu respecté ay sénégalais yi nga xam ne dañu pare ne te ñu ne gisuñu leen ci fichier électoral bi ay candidats yu am ay parrain ba noppi moo xam version électronique wala papier ñu ne nag kenn du xool seen version euh, papier loolu lu muy nuru nañ waxante dëgg bu nu bàyyee mu jàll rek daanaka loolee dafa mel ni nekk suñu ci état de droit état de droit nag mooy état boo xam ne dafay respecté ak la ak yelleefu doomu aadama bi maanaam citoyen état de droit euh, mooy état bu nga xam ne ni daan amul benn xajax seen te nag bu ñu fàttali kon kenn nekkul au-dessus de la loi mais le conseil constitutionnel xeex ñun collectif bi bala ñu am jël ndax lu mën a nekk la. pour que les droits des di fàttali Mamadou Fofana ne délégation euh, collectif bu candidat recalé yooyee daanaka nee nañu amul benn yoon fu ñu yëyee yàbbi jëm ci ñu dàq élection yi présidentielle bu 25 février yi nee nañu la ñu wax moo di en tout cas euh, vingt euh, élection yi nañu ko amal ca date wa ñu jooyanti dysfonctionnement yi ca nekk te lu mën a nekk la nag bu fekkee nag dañoo jàpp ne contrôle yi def nañ ko si diir ñaari fan wala ñett jàpp juróom kon nag li si des nii it mënees nañu defaat beneen saytu jëm ci parrainage yi. <clears throat> damay jàpp ne ne sax peut-être dem nañ bien au-delà peut-être des attentes ñi nga xam ne mooy nit ñi xaj na dañ doon xalaat ne bu ñu demee mbirum conseil constitutionnel ak mbirum DGE ak euh, li nga xam ne moom mooy CDC euh, plutôt oui CDC. moom moo mhm. leen fay yóbbu. mais gis nga waxtaan nañ fa mbirum détenu politique waxtaane nañ fa également mbirum kaaw Diomaye basiru Faye donc loolu aussi man dama jàpp ne ne lu am solo la parce que que bu fekkee ne ne intérêt général bi rek moo nekk ci kanam lépp li nga xam te ne nii moom mooy ay kanam euh, ci mbirum intérêt personnel man je di que loolu nekk na loo xam te ne nii lu am solo la quand il y a des problèmes c'est normal pour un président de la République ak ses administrés ñu mhm. mën a toog retrouver waxtaan pour quand même arrondir les angles et loolu fépp la xew amul fenn foo xam te ne nii problème day am te duñ ci ut solution maintenant quand les revendications sont légitimes et dem nañ même bien au-delà li nga xam ne moom nañ doon xaar Sarr dugal fa ñeneen ñoo xamante ne ni oui mbirum démocratie bi mbirum organiser des élections euh, mm-hmm. inclusives transparentes et libres loolu dafa nekk loo xamante ni c'est un plaidoyer important mm-hmm. xaj na nag fan euh, fan nañ mënoon a xaaree na kat doxewuñu taxawaay bu war mooy ñu dem fa mbirum la leen gën a yitteel mooy seen mm-hmm. mbirum bopp jàpp na élections yi nañ ko jéem a pousse ak yooyu mais gis nga la fa xew tey jii nii bu ñu demul woon tamit après lan ngay wax mais comme dem revendication yoo xam ne bokkut sax ak seen bos man je me lool que loolu lu am solo la maintenant c'est le président de la république dina leen tontu nee na dans les jours à venir mhm. on va observer et peut-être lan le président di leen wax El Hadj a nekk tontu bi selon yow. Euh, xam nga li Mamadou Fofana di wax nii maanaam consensus waxtaan ba juboo daal ci wàllum processus électoral daanaka bu ñu neexee ñu ne bu 92 ba daanaka moom moo xaw a indi sax alternance bi. 2000. Mhm. Euh, Abdoulaye Wade aussi bi mu fi jógee ne dafay votalu sa loi là. Mm. sur le quart bloquant. Sénégalais yëpp génn fippu mer mais il a retiré le le le le projet mais mbir mi fi mu waroon a jóge man li fa mën a wax nii d'accord naa ci de waxtaan. Mm-hmm. waxtaan moom Sénégal moom sax dëgg réewu jar nag boo bëggee dégg-dëgg kilifa diine yàgg nañ cee dugg kilifa aaday dugg ci eh, clergé bi joxe seen xalaat ci mbir mi ñëpp ci wàllum politique bi maanaam ñëpp ñëpp ñoom ñoo ci àddu dégg mm-hmm. mais dama ne mbir mi. fii nii nga xam ni lañ ko indi makki sàll bi mu waree toog ak toute la classe politique dëgg la dina ne woote na dialogue mais ñaata yoon lañu ñu woote dialogue ñu ndee nu sommes pour li mu wax nii tamit léegi nii am na yoo xamante ni nii ba léegi c'est pas trop pour ñu waxtaanee ko ak pour ñu saafara ko wax naa ne léegi nii la kaa Diomaye Faye ndeyu luwaay ci boppam moom moo wax nii kii présidentiable la candidat la candidat candi conseil constitutionnel bu demee ba wax Mamadou Fofana ne ko yow candidat Mm-hmm. kon yow tu n'es pas condamné. loolu am na boobooy benn wala.